chers internautes ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi fii ak uh, ki nga xam ne ne moom mooy Alassane Mbaye ñu koy wooy uh, le griot des VIP donc tonton Alassane ñu ngi leen nuyu bu baax di la dalal ci Sénégal. waa maa ngi leen di fay bu baax di leen nuyu ah di kontaan di leen sargal ci bis bu tedd bi nga xam ne képp kuy jullit rek bis bi nga am muy bisu Seydina Muhammad ñu ñëw fii nag ci Medina Baye ci dëkk bu tedd bi nga xam ne ku nekk xam na li Baye liggéey. ak njabootam nag ngeen fekk ñu fii si kër imaam Cheikh Tidiane Cissé di imaamul akbar bu na Baye ñuy sant bu baax nag di kontaan lool si fekk bi ngeen ñu fekk. tey ñu fii ñu bëgg a xam ban relation nga am ki nga xam ne ne tey moom moo nekk ci kër gi di soxna Fat Samb. ah mu nekk lu yàgg nag ndax kër gi biñ fi ñëw yàgg na kër goo xam ne boobu xale laa su ma ñëwee si suuf laay nekk di jàng samay leçon maa ngi am ay quatre quinze ans quatorze ans loolu du tey ñu ànd nag ànd bu rafet booba imaam Assane moo nekk imaam bi imaam Cheikh nag ànd ak moom di liggéey liggéey bu rafet bi ba imaam jóge fi imaam Cheikh Tidiane tey di imaam bi mais nag suñu wëllëre mësul tàqale ko dégg nga sànq bi ñuy joxe añ bi ma ne añ boo joxe plus de trente ans wala vingt ans loolu moom amul fay kon kóllëre la baax naa mais moom tamit nit ku baax la di nag ku am jom ku bëgg mbiyey bi nag ku bëgg imaam def ko muy sëriñam def ko muy léppam koo xam ne budget gàmmoom kenn du ma ni nit dina ko def mais xool la koy defee te lépp nañ deful ko lu dul teral ko sang bu tedd bi ak teral ko boroom këram bi nga xam ne bëggul lu dul yeneen. gis ne aussi am nga ay relation yu rafet ak bépp kër diine amoo fenn fi nga xam ne ne moom mooy sens interdit sànq aussi gis nañ sa relation ak li nga xam ne ne moom mooy Baye Ciss mën nga ñu wax aussi moom ban relation nga am moom. waaw Baye nit ku baax la. imaam moom ma jële fii yóbbu ma Amérique ñu ànd mu ne ma dama lay wan sama taalibe sama xarit ñu wàcce New York mu def teraanga bu rëy dalal ñu wal dof historial bu ma juumul jour boobu président Angleterre bi nelaw sax ñoo fa dalandoo ñu jóge fa ànd dem New Jersey mu présenté ma baay diggante boobu ak léegi nag ñu jàppante nag xam naa ni téye naa ko waaye amul lu muy defal nit loo xam ne deful ma ko mën naa ne yóbbu ma à travers le monde fu nekk ànd na fa ak man. donc sa kàddu rek bëriwul nag looy def interview xam nañ ko te xamal nga ñu ko aussi donc ñu ñu am chance tey daje yow fii donc yan kàddu ngay tëje yan message aussi ngay lancé ci fi nga xam ne ne moom mooy jeunesse bi. ah ñu gën a góorgóorlu rek ndax lay bu Diouf ne woon nappkat mënta benn nappkat ah, ah, mënta napp benn xeetu jën kon bàyyi napp na lu bari. ne bàyyi mooy ruu mooy xel yi mooy jëmm yi loolu nag bu ñu ko waxee mooy dafa jël léppam jox ko sunu boroom jox ko Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi salaatu wa salaam ñu ñaax jeunesse bi nag nañu gën a xam seenu bokk gën a xam seeni waajur gën a am diine tamit gën a jàppoo ku gis bàyyi lii ko yàlla may tey wax naa ko Touba ko xool dem dëkk Cheikh Ahmad Bamba jaar nañ Tiwaawan si burtu bi nga gis Maam Maodo li ko yàlla may nga dem laayeen nga xam ni ñooñu ñoo téye réew mi tey am na loo xam ne bu xewul si réew mi yu bari ñu ñuy gis si bitim réew di ko seetaan muy ay yëf yu metti fii ñaani yooyu moo ko téye kon nag ñu ne xale yi nañ gën a góorgóorlu gën a liggéey ak surtout doylu waaw doylu lu ne ku nekk rek la yàlla jox na xam ne lii mooy sa kër yàlla mu yokk waaw ñu bëggante nag sunu biir ak bàyyi xel ay jullit lañu violent bañ a am xeexante bañ a am gaañante bañ a am jigéen ñi tamit ñu gën leen a sàmm rawatina kuy góor rek am nga jarbaat bu jigéen ma nga xam ne jigéen mooy sa waajur am nga koo bokkal nday bàyyi ku jigéen nga gën a def sa xel rek si jàppale xale yu jigéen yi jàppale xale yu góor yi ku ñëw si pays bi nga xam ne tey waa Nigéria waa dëkk bu nekk dañuy jur doom muy jigéen ñu feral jur muy góor ñu feral indi fi teg si daara ji saay bu ñu demee si penc mi da ngay gis xale bu ndaw bu jigéen bu wàcc alxuraan xale bu góor wàcc alxuraan kon loolu du ko lu ndaw waaw kon ñu ngi sant bu baax rek di sant sama ñaari waajur di sant Cheikh Ahmadou ba sama sëriñ di sant rawatina sëñ Abdou Mbacke Karim Mbacke mi nga xam ne fa laa jokku di sant ñëpp nag. jaajëfal bu baax merci.